Sonko Sonko libéré Sonko loolu rek la gaa yi di wax xale yi daal xam naa ne ñoom xam am nañ carte d'identité wala mu ñu carte d'identité waaye daal xam naa ne bëgg nañ ko lool voilà beneen bi ci des tamit moo di wax sax xalaat ah Mouhamed Ndiaye borom revue de presse yi waaw wax sa xalaat moom boo dee ban wax ban bëgg la ci sànni plainte moom ndax dina ko jarate wax sa xalaat wax sa xalaat rek waaw wax sa xalaat ak xam nga faits divers yi nga xam dañ koy jàllale ñoom Mouhamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye da koy la ak voilà waa wax sa xalaat yëpp boo demee bañ la ciy plainte moom ndax jarate na ko ah cay Sénégal déformation sax déformation rek boo ko defee gars yi moom duñ la may dara man daal xam naa ne Sénégal noonu rek. voilà beneen bi ci des tamit moo de ah baadu université daa dañ ko bëgg a tëj ah yàlla baax na li ci kanam rewuti ay bët ma ne université bi dañ ko bëgg a tëj waaw ak lan moo tax ma ah ñu war a tijji njàng meeg njàngale mi nii. université Cheikh Anta Diop moom buñ ko tëjee moom ah waaw baax na xam naa li ci kanam rawut ay bët voilà xam naa ne daal moom mi ngi noonu Sénégal daal fi mu toll nii yaakaar naa ne fépp e, e, yëngu maanaam fépp fépp a yëngu ci wàllum politique képp moo ko waral wàllum politique adduna àdduna képp man da xawma ko sos politique de waaye lay lor nañu politique xam nga ko ko sos ak ko njëkk a waaye maa ngi leen koy laaj yéen ñi nekk ci commentaire yi yéen ñi xam seen gëstu yaatu na kan mooy njëkk kan moo njëkk a maanaam fabriqué wala kan moo njëkk a créé politicien parce que man man daal politique moom ni muy ni muy demee nii léegi ni muy doxee nii fa mu mujj fa muy mujj du neex de politique politicien yii ni ñuy doxalee ak ni ñuy doxee yaakaar naa ni ragal naa ni fan yii mujjee ca cappaandaw ci ca axru samaan ca cappaandaw la du neex de parce que xam naa ni adduna bu yeewu ba ni jar ñëpp yeewoo ndoo kan ngay kan jiiteeti ah xam naa li may wax nii de dana naqaree xam lool waaye ca kanam lañ koy xam duñ ko fekke de ndax lu yàgg lay doon waaye xam naa ne daal fii ñu jot a toll ñun ci sunu sunu sunu jamono xam naa ne moom li ñuy continuer waat ci kanam politiciens yi moom danañ danañ danañ jéem a danañ jéem a xoolaat yeneen stratégie yoo xam ne danañ ci mën a jaar sinon rek dootuñu am ku ni ku ni ku ni ku jiite voilà parce que problème bi mooy. bu boobaa nit ñi dañuy yeewu ba ne jar daan amaat beneen politique bu bokk ak politique bi politique bi nag ki ko sos moom xam nga kan la waaye ñu ngi leen koy laaj daal ci commentaire yi ndax xam nga moom lépp loo wax rek am na ñu ko xam nekk ci wet gi xam ko voilà ndax am na ñoo xam dañoo mën a gëstu lool sax waaw waaye daal politique ku njëkk a fabriqué wala ki waxuma fii Sénégal rek monde bi entier loo gis am na ko njëkk a créé voilà lépp loo gis am na ku ko njëkk a créé voilà ni muy amee léegi Sénégal gi moom. wax dëgg yàlla moom dalutuma xel daal waaw parce que coow li bari na te man jàppoon naa ne politique bu njëkk euh, ni ma gisee euh, occidentaux yi di ko def sax bu dul fii Sénégal ni ma gisee occidentaux yi di ko def mooy dem ci plateau yi ni ma gisee occidentaux yi di ko sax mooy dem ci plateau yi dem ci euh, journalistes yi ñu posé leen ay questions ñuy tontu question par question wala ñu ñu ñaari ñaari leader jàmmaarloo maanaam ñu seq plateau bi ñuy indi seeni programme jërul du yuuxu ak di tàccu ñu def benn salle boo xam ne ne foofu rek doy na sëkk foofu mais nekk ci quartier yi di tàccoo ko yoxu takk ay teset fii sol fii ñii di xalaf xalaf yi ñii di politique boobu moom jàpp naa ne wax dëgg yàlla war nañ koo dépassé daal dem ci plateau yi journalistes yi di leen poser ay questions ñu mën a xam dëgg dëgg dëgg yéen seen vision ci Sénégal lan la débat bi foofu la war a doon kenn ku ci nekk indi li